ñu dem ba àdduna yàqu nit topp ba kenam ma topp yàlla de afara ayta man ittaxasa illahu hawa yàlla nee na am na ñoo xam ne duma ma seen yàlla seen bakkan la ñuy jaamu xanaa loolu leer na nga topp sa bànneexu bakkan ndax xaalis xaalis moo tax nga topp sa bànneexu bakkan kii lii lii moo tax góor ci boppam nangu góor juutal ko su paree jox ko ko mais ça c'est lii moo tax góor juutal góor bu paree jox ko ko tax góor juutu su paree ñu jox ko ñu dem ba mu yàgg góor ne léegi damay soppale ko jigéen ci sama làmmiñ waaye mënuma koo soppi ci sama forme danaa regeju danaa biiju danaa ñamax ñamaxi waaye du tey li ci caay ji ne ci caay ji rek